di nga yàgg misère de yow Eva xool naa ba xool mais yow vrai yambar nga quoi nekkul fàllu tey yow la war a am rendez-vous 10 heures te xoola ba muy nelaw ba heure bi il dort waxuma la door sax mais dormir lay de dangaa mënul jël sa téléphone nga woo lan mooy baax na danga kaa mënul woo nee naa baax na baax na loo ma wax la wa yow mi nekk yambar nga de oh. <laughs> jël sa téléphone nga woo ko Allô yow dala fàttali sa rendez-vous bi 10 h la ngay nelaw ba heure bi si Eva tey jégal moko rek tay fi ma ko Marichou jàpp moo tax waa baax d'accord Yo Eva bax na ngay wax maa ngi xaar ba mu ñew fi la may fekk cim su la fekkul fan la lay fekk <laughs> léegi pot la yow lo ci wax <laughs> non man mom ci yow ba ma noppi rek waa jógal la nga jël sa baax hmm. dama ngay xol mbay bu toj boo xamul fenn tey moom maa lay sang ba nga set. kon bébé tey yaa sang. mooy yéen. bébé tey laa doog xam que ni yow yaay sama médecin. kon xam nga ne may sa médecin. waxuma la sax waaye yaay sama lépp bébé. man maa yor garab bi lay bébé loolu dafa fees. mooy yéen. waa Pod yow lii doo ci wax. yow Eva eh, yow mom togal di misère rek. bébé dama bëggon xam yo looy bëgg rek ma défaral lako sama yef man xam man lan moo may neex dila défar lu may neex nga diko sentir man loolu rek mo may neex. ah bébé man xam la la bëgg nga défaral mako nga bëjjal ma pot. mo yeen ci te plaît defal ma ngir ma. ayo gis nga yow li ma def tay bu ma ko defa ci métti na ma torop ndax ma sacrifier sama liguey tok ba heure bi di la xaar yow ngay nelaw que sey fu ñak fay day nak mo la ko jaral lolu yow la rek te rendez-vous bi reporté wu mako ko dama ka annuler léegi nak lu neex defal ah, moo namu lan mo xew hé bu ma waxati mo namu mo namu li ngay wax marichu di mako wax la bëgg mu dag tay et puis génn sama néeg dalul fi nga jóge génnal génnal <laughs> papa yo tamit lépp ak yow tamit waaw man la maa tey li ngay bëgg a jigéen caga nga rek léegi kan moo ban jigéen man sa baay xanaa li yow noo def bu jur ma i yow tey rek laaj toj sa